yàggul dara benn femme la boo xam ni dafa tolloon diggante maanaam dafa ëmboon yor valise boo xam da ko duy drogue ba mu fees dell wërwërloo ak réeral douane bi foofee la trafiquant yi mëne fii ay baafulu musique la ñu sërëxaloon ci biir kon gaa yi yéen ko déggandoo jërëjëf waa douane jërëjëf gendarmerie bu Sénégal jërëjëf armée bu senegal Sénégal jërëjëf police bu senegal mu mel ni douane defati na njàmbaar gu mat sëkk defati jaloore ju mat sëkk li lan di sentu ci sunu doanu rew lepp lo xamne day dugg ci rew mi te wata dugg ci rew mi ni ngeen ko doxale rek lan doon sentu ci yeen jub-jubal jubante bi nak yeen ngi ci japp sen kemta lay katam waaw len gor bepp pexe trafiquant yalla bu mu jub bepp pexe bu doan tek ngir japp trafiquant yalla nako yalla ko ci jàmm jere ngeen jëf doan bu senegal ndax xam ngeen ne lu way nekkul talibem do nek serignam lii nak da ngeen ko xam da ngeen ko tarbiya jang ko ba mokal ko motax bépp defkat boo xam ne traversé na ci soonu Sénégal yi ngeen mer na ko ngeen man ne ko katiw boole ci njub gu mat sëkk nag ndax xam ngeen ne lii ngeen jàpp ay alal ju bari la bu la neexoon ngeen damm ko seen poos na patt pateeral kenn du ci ban dara waaye nag jàpp ci jub jubal jubbanti bi ak bëgg a seen askanu réew ak bëgg a sowe seen ndawi réew ndax xam ngeen ne lii ndaw ñi doo nga cee alko kese ngeen xam ko nag te jàpp ko wane ko lii nag mooy jub jubal jubbanti bo nekké bo yoré lu ñëpp bok da ngay diiso ñëpp di léral ñëpp bu ko défé kenn ku né mëna am confiance ci yow nak nak am nañ confiance pire et dire ci douane bu Sénégal na xam nañ ne instant yi ni ni dip ba Bassirou Diomaye Diakhar fay ñëwé ba légui xam nañ ne douane lim doon def mi ngi koy continuer def muy jup jubal jubanti jéré ngeen jëf ndax li ñaawteef gu lu ko gëna ñaaw amut waye nak ngeen tek ci seen bakkan xar ci seen tank tubay ba lépp lu mu leen jaay ñoom ñaaw def kati ñaawteef yi mu jël leen lu ko ëpp ba ngeen mën koo jàppaleeral ko Sénégal yi ñu ngi leen di félicité di leen ñaanal yàlla seen yoon àgg te ñun Sénégalais yëpp ñu topp seen ginnaaw jàppale leen jërë ngeen jëf.